<laughs> waaw. bu fanaan ak moom doo nelaw ba fajar. ndax xam-xam bi. ak ak doole li mu bëgg ci mbàppat. di daan gisuma mbër mu ko ci senegal léegi ndiku dañu bëgg nga mosa ñu si Ama Baldé Franc. maa ngi nuyu Bokar. Bokar sa xarit. waaw maa ngi leen di ñëpp waa Lutte TV yàlla leen yàlla dafa jàmm ci at mi. amiin amiin ziar yàlla grand champion Jacob Balde. Ama Balde dafa perte lu bari ci làmb. Uh-huh. te carrière commencé gul. waaw. Ama Balde dafa perte lu bari ci làmb te carrière bi commencé gul. dëgg moom la Mansour wax. boo limee lu mat dix adversaire ci làmb yoo xam ne bëree ñoom te ku ci ne boo bëree woon ak moom am cent cinquante millions. Mhm. wallaay. perte nga ci sa carrière te commencé goo ci làmb te yaa ngi ci sa diggante. dëgg la. léegi lenn rek moo koy dese mooy for gunóor. xale yu tey mu jël leen. Mhm. risque jël leen lum fa am. la. dëgg la Jacob nag moom avenir u làmb la parce que. Mhm. moom it li dal Ama daf koy dal. Mhm. parce que moom it bëriwul adversaire. ndax bu fekkee doo bëreeg Sa Thiès. Mhm. doo bëreeg Balla doo bëreeg Lac de Guiers. waaw doo bëreeg Ama. waaw doo bëreeg te ñooñu kere mu làmb lañ ku bëreeg ñoom lekki million moom la Mansour wax léegi. wallaay. bëgg teraanga da ngay jël lu dem ci sa yaay ak sa baay ak mm. say dëkkandoo. Mm-hmm. ñu bëgg ci yow ngeen ma la ñaanal la nga wuti doole te may doxalee jigéen jërëjëf jërëjëf Ndik. góor <laughs> mm-hmm. du dëkk ci kàddu gi bi dafa xat. waaw <laughs> jërëjëf jërëjëf Ndiku nañ lay invité nga ñëwaat toog fi incha allah. Ndiku kay kay la. nit il faut nga ñëwaat si plateau bi. élément lamba la <laughs> élément Ndiol Fouta Fall ah ah ndeysaan jërëjëf Ndiku. ndeysaan dina ñëwaat fii Ndiku ku la xam la. non làmb xamuñu ko Boucar allez mhm. yaakaar naa lu am solo père nag xam naa d'accord li mu wax ci risque côté risque. waaw côté nanguwul de. nanguwul. Uh-huh. mais nag l'avenir. mais Fall kii dafa mel ni nanguwul. voilà l'avenir nous le dira. parce que yow nga ne Ama daa jël risque wala. non du parce que li ma xam ci ci ci ci Ama ci ci ci ci Franc. waaw kii xam na ko ci Franc. mais maanaam mbër la boo xamante ni tey lutte simple. Mhm. daf si marqué empreinte am. waaw ah. dafa am mbër yoo xamante yàlla mooy dogal maanaam dañu nekk ay mhm. champion. Mhm. li ma waxoon laa comme si fanaan la ko peut-être si Doudou Sané. doone mbër la bu extraordinaire ci bëre. waaw mais day yor bëre bu assuré. maa moom dafa nekk def ay kële Franc même boo dajee boo sax da lay respecté cadre la fexe jàppante ak yow daan la dem toog. man moom lu ma gën a marqué rapidité bi. rapidité bi. kon su ma nee xëy na Franc Franc amaa jël na risque mooy. jël ko xamante ne amaana tey bu la daanee. maanaam risque mooy loolu ki la maanaam bu la daanee après fan ngay jëm loolu risque bi moo tax ma ne risque la mais jël ko ko kenn forcé ko ko mm-hmm. xam na li ko ciy xaar mm-hmm. xam na aussi xëy li ko war ci combat bi pour mu mën si génn mm-hmm. xam naa ne dina ci nekk en tout cas bu neex la mais risque la ci Ama man sama gis laa wax nag nangu nga analyse bi Boucar def doo Boucar xam na Franc xam na Franc. xam bu baax. mais ñu tamit xam nga ragal Franc. <laughs> dëgg Franc soo gisee sax suy bëree ñun ndaw ak lépp la yawale. da lay jox cër bu mu lay jox ba jàpp la. parce que xam na ni dooleem fii la nekk. épaule yi. loxo yi moom su la balee wala mu téye la. su fekkee amoo doole boobu wala amoo kattan boo xamante ni mën nga résister ay doole loxo. waaw non da lay day teel a tàqali. day teel a tàqali lu leer daaje. père ragaloo Franc. non man. père sedd nag bi Ama Franc ba léegi da ngaa sedd. non non non non non xamutuma bu ko jaaxare moom la neex. barke El Hadj Malick si waxuma waxu bu ko jaaxal moom la neex. Mhm. ci ci mën a mhm. fi mu jaar ci làmb. Mhm. ba agsi fii. waaw bu ko jaaxal moom la neex. la xam nga naka la koy neexee. waaw mooy day bi jël entraînement teg ko côté bële ñu koy dundaloo leneen. entre Ama Baldé fi mu ne demee naa nii. Hmm. la war a jóg. Ama Baldé am doole yomb na ci moom. Hmm. booy la. dëgg la demul fenn. waa léegi Jacob forme bi Ama Baldé andi contre Gris Bordeaux mun na bëri ak Franc. non non. non non. wax dëgg fa de yàlla père comme lu mu wax rek. waaw Ama ku ko jaaxal ci làmb rek. Ah. moom la neex. moom la neex. moo Gris Bordeaux. Hmm. mu ngi may seetaat su nekkee seetaat ma sax. après ah. dina ma seetaat. waaw forme bii muy li. trois semaine lañ ko liggéey. trois semaines vingt et un jours vingt et un jours maa ngi nuyu sama coach Codé bu baax a baax a baax mhm. dañ ko doon liggéeyloo matin mhm. soir mhm. maanaam comme genre musculation contact lay def waaw loolu lañ ko doon liggéeyloo lii trois semaines la indi lii vingt et un jours waaw la ama mel nii imaginez ama bu préparé kon trois mois wala six mois nan la war a mel day os non man moom dama koy ñaan di ko wax forme bu mu indi contre moom Malick Niang. waaw moom laa bëgg mu indil Franc. tëgg hmm. la. waaw parce que Franc dafa def dafa def dafa défier waa Pikine yëpp. yëpp. moom mu jël en charge ne moom mooy. moom moo jël charge bi. ne moom mooy dindi loolu. waaw Franc warul tëkk Eumeu Sène warul xas Eumeu Sène yooyu. loolu moom soo ko bëggee dindi si yaag Franc. waaw indil ma forme bi nga indi yaag Malick Niang. Ah. soo tegalee franc. Mhm. at bi suñuy prix franc mooy daw def kaat app wala bu génn làmb ji. Hmm, dëgg la. Mhm. Père li forme bi Ama Baldé ànd contre Gris Bordeaux est-ce que lii war na ko andi contre franc. non c'est man damay wax ci li kii wax. allez-y. ndax tak hmm. man du entraînement bu nekk laay fekkee. waaw wala bu du entraînement bu ne laay dem. Hmm. damay wax li kii wax. su fekkee noonu la demee. ana Jules Baldé. lan moo xew ba tax loolu am. Hmm. ay millions du waxu caaxaan. waxu caaxaan làmb. Hmm. su ñu joxe ay millions. dama lépp lu dëkk mënul te muy fo. Hmm. wala noppaloo jeex na fa. da ngaa war a jóg dès maintenant ne làmb ja. ba bés bi jot. loolu lay làmb wax. waaye boo ma ne trois semaines la. waaw te man amaa ñu daje Milan ma ak moom. Milan daje nañ fa ma ak moom mu fekk ma ci place DG. ñu toog fa waxtaan sax ci benn restaurant toog ma ak moom añandoo ma ak moom. ñu waxtaan am na lu ma ko jot a wax mu dégg ko. mais que ni. moom jóge na fii ñu ne dem na entraîné ji kon bu fekkee nag maa wax loolu. amaa dama la ko am xam nga dama la ko amaa am doole yomb na ko. yaa ngi koy ndax xale la. Hmm. beneen bi ki des mooy. kaakaar macha allah xelam dal na. Hmm. mais li ki des mooy doole. doole nag da ko fay bàyyi. doole xam nga dëgg-dëgg Pape Konaté wax loolu. njaay bu jarul bu fa dara jóg da ngaa teg seen njaay du ko jaay. kenn jënd ko. dugalaata ci biir néeg bi xaar boo xëyee suba defaraatal ba mu jekk nga tegaat. yàgg yàgg dana jar. day jar dama ni ma ni. Hmm. ñun bari nañ ba xobi daas gi suñu 3 millions. te dañoo bëri ba xobi daas ay combat yi mitti ak ñun mbër ay mbër yu doon liir làmb lañ daan bëreel mhm. ay mbër yoo xam ne mbër kese la ñu woon mhm. ay mbër yoo xam ne dund dund làmb xam nañu loolu xam nañ ko man ñu ma bëri ay Ibou Ndafa xam nga ne kooku moo jeexoon téere yi mhm. Robert numéro deux Sidi Cissé Daouda Boury Patar ay Doudou Bakka numéro deux ay Dame Sugeer dama ni xam nga la mooy wax ji mooy li xew ni ci millions yu bari yi man bu ma ci gisee mbër boo xam ne da ngay taxawaalu di fooye di fooy sa carrière entraîné wuloo mhm. man dama lay damay jooy damay waaru ci yàlla dama lii lan la mhm. ñun xoolal man daanaa tos a kaaya mhm. du ma am lu ma coob tey journée neexul ma jóge entraînement ak sama tax ay kii xam nga lu may def mburu fagada moom laa daan reeree kilo mburu fagada ma def ko ci potu ndaa sotti ca ndox suukar ko ba mu saf daggate mburu yo def ca ba mu fees bàyyi ko ba mu noyyi ma dóor ko ba mu jeex takk mat na mat na mbër da nga regg rek. man d' abord entraîné xoolu bi ma cent soixante quinze kilos laa doon teg sama loxo ci jonkon di jóg. cent soixante quinze kilos. ba pare dama ci def douze série de douze. assis laa wax. bëri na fi mbër yoo xam ne dañuy dox ci biir làmb ji waxoo xam ne ñu entraîné wu ñu. ak millions yi ñu leen di jox. dëgg ah. ah. bi mu jël. Hmm. na fexe ba xam ni. gàdd na drapeau ñëpp. ku doon bëri ci dugub bi Guinée ci combat bi ndax li booy bi wax moom mu ñëw défier ko wan ko ni ko li ngay wax du dëgg dama lay jël jël na ko nag allahu akbar kon nag mbir maa ngi noonu yow yow waxtaan ngeen si avant muy jël franc noonu peut-être moo Gris Bordeaux ba ñu entraîné Gris Bordeaux hmm. ma ne ko comme li nga am trois semaines nga am pour yaa Gris Bordeaux hmm. suñu continuer entraînement yi suñ ko continuer maanaam sa combaa Gris Bordeaux jeex ñu continuer entraînement yi hmm. soo la neexee dajal franc ñu ñoom ñëpp dajale leen. Mm-hmm. benn at nga bëri ñoom. way way parce que système entraînement baa ngi fi. Mm-hmm. ñeme la rek. entraînement bi moom waaw. am nañ coach boo xamante ni waaw yàlla def na ni. xanaa amaa léegi daa ragal entraînement. <laughs> non xam nga benn si soo jógee. am na yu bëri yoo xamante ni da nga koy ragal. Mm-hmm. mais mu ngi ñëw nank nànk comme lu doon wax moom Modou Lo ay neer yooyu noonu. waaw du ay bi dafay indiwaat Modou Lo Ama Balde. Modou Lo Franc ban moo si gën a ëpp daraja Pikine Pikine parcelle la Pikine parcelle la mm. ñoom comme def nañ ko léegi dër bi lañ ko def waaw Pikine gis nga yow léegi suy am te parcelle dafa mel ni jamono ji dafa dafa xoolee parcelle moo ñu xaw a dominer ci lu bari waaw parce que c'est presque ni ñu koy waxati waaye combat yi ñu gën a soxla waaw ñoom parcelle ñoo la mu ngi noonu mu ngi noonu combat bi bu la si Ama Baldé consulter consulter ñoom Baboy ñoom Dégol di ngeen si xuus euh, taqrib xam nga man samay wax du ma ko nëbb allez-y man damaa bëri ba bàyyi làmb ñaar fukki ak juróom suñu kër mooy làmb ndax boo génnee kër Falaye Balde rek mhm. mu bàyyee làmb mhm. kenn nekkatu fa woon mhm. dëgg la Pape Diop bi mu jëlee làmb rek ku xëy Pikine ngay ñëw ku xëy suñu kër ngay ñëw dëgg la suñu kër sama papa danaan da ba mujj gi sa tala ndox la daan yor di ko roose ci buntu kër gi ci bambo pied bi ci buntu kër gi pour nga bañ ko fa toog te ba ba gars yi jógee saal ba waaw foofu la moo seen terminus ca buntu kër ga bu timaa jotee bu kër ga moo seen terminus fa ñu toog ba deux heures trois heures jot ñu takk wuti làmb làmb ja hmm. démb Jóob wala Iba Maar xoolal man làmb dama te gisatul dara lu ma jomal wala lu ma jaar hmm. waaye la ma waxoon te combat ama ba euh, combat ama seen ba ak euh, ak euh, non combat seen ba ak tafatin hmm. ca point de presse ba xaw ma yéen a koy rappelé wala déet woon bëgguma woon wax ama seen ni ma foog nga wax ñu jox ma micro bi mën leen man Mansour Diop mhm. ci biir Pikine ku ma woo ci sa yëf danaa ñëw waaye ne lamb dansé mhm. ak waxkat yi mhm. ak jaxasekat yi ku ma woowul sa yow en personne jël sama numéro ni ma père walla zéro waaye fan nga ne waaye mais loolu dafa yomb ñëpp jir barde su ma rakka la ñu ànd pendant des années may jóge di ànd fi Gàmbi ñuy bokk néeg bu ñuy fanaan mm. fanaan day sale dafa dem di bëri ay ñoom ay jalan bu kari demba mm. ay mataar jeeju ay kasinko ay malboro ay kastiko obligé mm-hmm. moom xam na ma li mu mën a wax ci Camara kenn mënu ko wax ci man mm-hmm. lii gën a rafet mooy mm-hmm. fi coow li nekk nii yow mbër nga fii ngi yàgg ci biir bi nañu la woo bu ñu la wooyee. nga toog ca nga toog ci entraînement soo gisee lu xam nga lii lii de baaxul nii nañ ko doxale nii. nii ngay bëri nii nii ne baaxul. musculation bi. Hmm. ñu topp la ba ca saal ba. teg la ci ay sart parce que man bëri na coach yu ma gis sart de musculation yi mënuñu ah. Hmm. barka El Hadj mu mënuñu. Hmm. musculation dafa am sart. ci mollet lay commencé. dëgg la jëm fesse devant fesse derrière. def abdominal. def lombaire def adducteur def dorsal def pectoral def épaule devant épaule derrière def avant-bras biceps triceps trapèze mais loolu bëri na mbër yoo xam ni si amul continué ko jox dama lay gis jox la benn disque nga naan nii di def ay kii di def ay mouvement mbër moomu loolu mbër musculation la moom amaa bu bëggee am doole xam ne ni muy amee doole am doole yomb na ko na muscle court la du muscle long te Ama bu amee doole barki Seydina Mohamed bokkul ak bind sax franc ba ñuy bokk doole ñoom ñaar bu entraîné normal laa wax. bokk mais bu la consulter wala. non man xam nga nekkuma fi. yow yaa ngi Europe. maa ngi Europe te doon liggéey jàmbur laa ngi ñëw pour quelque temps man Aziz Ndiaye ma fi rek. par force. Hmm. ma ñëw ngir jàppale la seeni i koom seen lamb yi ñu taxawal nii. waaw. waaye wax ak nit ki conseil dafa am solo. yàlla man ko ma ci jokkoonte téléphone man wax dëgg yàlla iñaanu ma ci sama xam-xam waaye sous-estimé mooy xam ni kii Jacob Baldé mi mënoon na lii kenn dax ko woon bàyyi na bëre ay yeneen booy feeñ ñooñu ñu koy bu ñu waxee Jacob Baldé ñun waaye Jacob di dara waay te dafa bëri léegi ci groupe yi bu boobaa nag da ngay toog sa kër toog sa jàpp sa te bu mbër ba dee bëre nga supporté ko man mënumaa supporté kenn ko dul ku dëkk bi bu ma ci bokkee bu ma ñëwee bu ma ñëwul yëpp. Mhm. damay supporter rek. d'accord loolu la. Jacob toujours si combat boobu. Franc daa gëm ne moom si 30 secondes moom mu mu tàggoog yéen. non impossible. ah <laughs> nañ de nee si 30 secondes mu tàggoo ak yéen sànni karawaas dellu parcelle ah Père Mansour non non non non non non non non du demee noonu hmm. ay waa jëlee ah waaye du ah, demee moo ko wax de waxam la de amaa ku ko ërtal mu ñàkk nga ñàkk sa làmb mbër mu ñuy waaye bu ko ëttalee ñàkk salaam. mais booy bi daa gëm ni moom si 30 mu tàggatoo ak. waaw léegi nag xam nga kon ñaati ñaati junni bis moo ci des. bari na. ah xaaral ba bés ba jot rek nag. février 2000 allez-y. gis naa Zarko di def dara comme watante doon 4 heures du matin bi di bëri waaw maag Fara suñ ko defoon rek gars yi génn si Fara. du ma xalaatul sax bëre 3 minutes. dinañ bëri naan ndox ñëwaat xaj mi xanaa luy xew doo ngay xew. mais moom nee na Ama waaye moom 30 secondes la la kii Ama 30 secondes da génn ci loolu. loolu na génn ci loolu. waaw man koo neexalee rek ci biir wax. di wax xam nga gars yi mbëru làmb ak loolu am. mais dafa mel ni yéen ah Franc mu ngi leen di atteindre nag. non yéen ñett bëri ñëw leen ma kii 30 secondes. mais c'est normal est-ce que comment sur le plan sur le plan. eh damay doog kii. waaw mais looloo war mbër mi. man mii moom dama koy xamal ni ko loo yaru yaru yaru. waaw del tooñ. mbër day tooñ. Franc tooña ko jot ah, moo ko jox moo ko jox ah, moo ko jox Ama Baldé ku nekk mu défier la défier Eumeu Sène mbër day tooñ ah. mbër bu amee doole ba pare doone leew mel ne xar mu yaru da ngay tooñ da ngay tudd ay champion yoo xam ne ñi mënoon lañ jot nga di leen tooñ leen défier mm. nit ñi di ko coow moo lay indi mais Ama def na loo xam ne lu kenn ñëwul def Bougar tey bu daanee euh, Franc day dugg si histoire waaw li Balla Gaye defoon Yékini mm-hmm. tey dafa euh, Ama Baldé moom lay daa def mooy arrêté koo xam ne treize combats treize victoires. non ku ñëpp doon moytu sax. ngay wax ñëpp ah très bien ñëpp ko doon moytu parce que Franc quoi ko ñëpp a ko doon moytu. wallaahi parce que li ma wax rek bu la si VIP